dal leen ak jàmm ñu xëy naka tàqaani li yéene kaay xëye tàmbale ko naka kaay Mimi Touré nag la xëy dalal bi ne naka njorti ne Mimi Touré daanaka am na ku ñaante ndax toll na ci jamono ni daanaka nag yàqoon nañ ko ba pare maanaam daal fexe nañ ko bu écarté ci nga xamante ni si moo làng gi waaye naka ci loole naka moo fi waral waaye itam ana lan moo fi ñor rek bañ koy a dikkaat rek nga xamante ni daanaka Macky Sall moom faagaagal na koon ba noppi loolee tax naka yéene kaay bi di mandat xëy duppee ko ni fond de l'abîme à Kasim loolee nag tax na nag ñu bëri nag samp ab laaj ne Mimi ak Macky mi ana lan rek moo ñor seenub diggante l'évidence yéeni kaay ci la dikkaat ti tête de liste Benno Bokk Yaakaar boobee di Mimi Touré la dauphine la ko tuddee Mimi Touré moomee nag Macky Sall nag nomm assemblée nationale ba noppi ban avenir rek la ki xamante moom la Moustapha Niass war a am nag fi mu ne nii xanaa mu dem toog te noppalu xam ne jëm na mag ci jamono jooje moom vox populi ne tànne fi nag jëm ci naka tànne fa nag jëm ci élection législative na a yoro fay naka daal dinaa génn naka frappé na porte naka parti démocratique sénégalais ndax la jàpp ne ne xel xalaatu naka ñoom ñu koy teg rek ci dix-neuvième position waaye itamit di ma ne gannaaw Abdoulaye naka président assemblée nationale nekk naka boo moytu naka saa bu Macky kii nga xamante moo nekk tête de liste te ñu tabb kon démb rek mooy danger wu APR ndax ci jamono ji nag am na njort ak xiini miini yoo xamante si dina lalu ci tànneef yi naka boo moytu naka dina indi gàllankoor bu réeree ci nga xamante si ñoo di APR di parti njiiti

coalition père présidentielle bi ngeen yaakaar loolu lii quotidien moom ab laaj wu rëy la xëy samp ci tëdd liste nationale bu coalition Benno Bokk Yaakaar ci élection législative yooyu ndax Mimi naka min na indil ab majorité Macky loolu naka lu ci doon lu ne naka jàpp leen naka yàggatul naka léegi ñu war na sëgg bëre synergie républicaine naka ñoom ci jamono ji jàpp nañ ne naka choix bi Macky Sall rek ci Mimi Touré la boo xamante a Bougane ndax a atu faiblesse ak tête de bi nga xamante ni nañ ko ko moom Mimi Touré bi xëy na cee dikkaat yeewi wàllu la part sacrificielle naka d'une alliance loolee naka yéenekaay bi dikkaat nañ ci ndax jàpp nañ lu bëri naka ci biir am na ci loo xamante ni boo moytu naka ay sacrifice la nar a doon ci ñenn ñi yéenekaay bi tribune di gën a xóotal ak Macky Sall ans de combat yoo ni ndax gis nañu naka moom Mimi naka disqualifié woon ci troisième mandat bi waaye naka ñoom ñaar yéenekaay bi na du ñu te du ñu moom Mimi ak Macky gannaaw Mayoro Faye ki nga xamante moom la war a jël naka waaye itam yéenekaay bi ne toujours dans le cœur des waaye

nit ñu bëri Abdou Ndéné Sall di DG SENTER nee na nag ñi nga xamante ni ñoo doon def jëf joojee ñoom ñëpp filmé nañ leen te bu yeboo sax ñu xam ne daanu leen teg loxo tàggat yaram wax ci Sadio Mané ak Premier League niki tey jii nag seen diggante Aston Villa Sadio Mané ak ñoñam nag tey jii gagné rek wala ñu fori ci championnat Angleterre boobee ñoo ko déggandoo jaa ngeen jëf ba ëllëg